xamante ni ñoo ñàkk seen bakkan te ñu boom leen ci événement yi nga xamante ni moo fi amoon ci weer yi passé di ñaan yàlla mi nga xamante ni moom moom moom àjjanaam yàlla na leen teeru ci àjjana yi nga xamante ni ñoo gën a kawe muy firdaws di wax wax joo xamante ni du gudd sengoor bi mu fi nekkee boomoon nañu ay senegale abdu juuf bi mu fi nekkee boomoon nañu ay senegale ci wàllum xeex démocratie ak àq ak yelleef Abdoulaye Wade bi mu fi nekkee boomoon nañu ay senegale ci xeex démocratie ak àq ak yelleef ak yorin bi ñuy yore askan wi ñu fogoon ni foofu lay yem Macky Sall ñëw tollanti ñu boomaat ay xale yu ndaw ay senegale yoo xamante ni dañ doon xeex ak ak yelleef ak démocratie bu taxaw léegi nag wax ji nga xamante ni moom laay wax ñii ma àndal di suma ay nawle di waa m nekk ñoo xamante ni su fekkonte ni caaxaan wala ñàkk fulla moo leen tax a jóg duma bokk ca boobu kuréel ndax kenn xamuma ci loolu ñoom lay interpeller directement ndax yàlla mi ñu sàkk fii ku ci nekk am na kum la rayal waaye danga dem denc ko bi nga delloo sa kër ngay julli di ko ñaanal yëfi yàlla la di leen wax ni leen nag loo xamante ni doomu aadama moo ko commandité def ko dañ ko war a lijjanti kon maa ngi leen di interpeller ginnaaw ba def nañ li nga xamante ni mooy teg tànk bu jëkk muy prière Sénégal yëpp daje ñu ñaanal suñu martyrs yi yàlla yërëm leen te jéggal leen la ca des nag yeneen plan d'action yi mooy ñu am fermeté ñu am taxawaay boo xamante ni exiger ki nga xamante ni tey jii moo prouvé ko loolu que justice soit faite phrase bi ci suuf votre sacrifice ne sera pas en vain vain bu ñu delloo incha allahu rabbi ñu dëggal loolu doxee ko exiger pour que lumière soit faite pour que justice soit faite pour que li nga xamante ni ñoom ñoo leen rey ñu dégg ñu xam ne ñii lañ et ñu teg leen daan yi leen war a daan jaa ngeen jëf ñu bàyyi xel tàccu yi ak jotaay bi